400 milliards, c'est quand même pas une valise que l'on prend sur soi. Voilà Abdoulaye Wade cet après-midi à Fan Résidence. Alors pour analyser hein, cette sortie et première de l'ancien président de la République, euh, Barkaba, directeur de l'information, euh, tout à l'heure vous soulignez tout simplement fait inédit, un président battu et qui s'adresse à la presse pour parler de la nation. Absolument Fatou, il faut dire que c'est une rupture euh, par rapport à la tradition républicaine qu'on a observée depuis le régime du président Senghor, suivi par euh, celui du, du président Abdou Abdou Diouf, il est de tradition qu'un chef d'État qui quitte euh, sa fonction s'impose non pas une obligation de, de, de réserve, parce que ce n'est écrit nulle part, c'est simplement une règle de bienséance euh, républicaine, euh, le président Senghor l'a observé scrupuleusement. Il ne s'est jamais prononcé après son départ du pouvoir mm -hmm. sur des questions d'intérêt national. Euh, le président Abdou Diouf s'est astreint lui-même à cette même obligation, enfin, cette même, euh, ce devoir de, de, de, de réserve, euh, Abdoulaye Wade a jugé utile, lui, de ne pas continuer euh, dans cette tradition. Il a décidé de se prononcer euh, deux mois après sa sortie du palais. C'est la première observation qu'on peut faire sur euh, la forme. Il y a une rupture d'une tra tradition républicaine établie jusque-là. Mais alors, euh, qu'est-ce qui a motivé cette sortie-là Euh, il y a plusieurs éléments. Je pense que d'abord, c'est lié à, à, la personnalité du, du, du président Abdoulaye Wade. Pour ceux qui connaissent euh, le tempérament de l'ancien chef de l'État, euh, il aurait été difficile de le voir garder le silence face à ce qui s'est passé récemment. Et j'ai l'impression que chez les libéraux, euh, la prise de parole de ce soir du président de la République est l'aboutissement d'une stratégie bien mûrie. Au départ, après son retrait du, du, du, pouvoir, on a vu la passation de service avec euh, le président Macky Sall qui s'est passée d'une manière très courtoise. En tout cas, d'après ce qu'on a vu publiquement, euh, le président avait invité ses collaborateurs à s'abstenir de critiquer le régime de Macky Sall. Jusque-là, il s'était tenu à cette ligne de conduite, mais on a vu que peu à peu après, ils se sont affranchis de cette règle. Est-ce que les libéraux considèrent que c'est l'actuel régime qui a déclenché les hostilités avec cette affaire de véhicules volés de la présidence En tout cas, on a vu que d'abord euh, les plus proches collaborateurs du président de la République, comme dans une stratégie d'escalier, on a notamment vu Euh, son ancien porte-parole, Serine Mbacké Ndiaye, qui est devenu son porte-parole après la perte du pouvoir, tenir un point de presse. On a vu quelqu'un qui lui était très proche aussi euh, récemment, le ministre, l'ancien ministre d'État garde des Sceaux, maître euh, lui aussi se prononcer sur les ondes d'une radio. On a vu Ousmane Gom dans une télé de la place. On a vu le ministre Aliou Sow. Donc, on a vu la sortie euh, d'un des responsables des cadres libéraux, Aziz Diop, j'ai l'impression que toute cette stratégie était savamment orchestrée, mûrie et planifiée, sans oublier aussi euh, quelqu'un qui est très très proche du président de la République, Farba Senghor, qui a tenu aussi, euh, qui a fait une euh, sortie très remarquée dans les colonnes de, de l'Observateur. Je pense que le président de la République est le dernier palier de cette stratégie de communication, comme si euh, les libéraux voulaient envoyer un message à l'actuel pouvoir. Mais on a vu également président euh, avec une sortie assez, euh, le nom de ses plus proches collaborateurs, je, pour ne pas le citer, Pape Diop. Euh, qu'est-ce qui peut expliquer cela je ne pense pas qu'il que le, le président de la République euh, a souligné un fait très curieux Et dans sa sortie médiatique, ce sera l'un des euh, points saillants et même ahurissants, parce que le président de la République a accusé, euh, a, a, a, émis en tout cas des doutes mm -hmm. sur l'identité de celui qui était chargé d'assurer l'intérim du pouvoir en cas de vacances. Euh, euh donc, euh, Pape Diop, qui a été président de l'Assemblée nationale, qui a été aussi son dauphin constitutionnel en tant que président de la Chambre haute, donc euh, du Sénat, il est quand même curieux que pendant 12 ans, le président de la République euh, n'ait pas eu des garanties sur l'assurance de lui qui était chargé de prendre les rênes constitutionnellement euh, du pays en cas de vacances du pouvoir. Alors on constate également que depuis hein, euh, sa chute, euh, Abdoulaye Wade s'érige un peu en dernier rempart euh, de sa famille. C'est la logique qu'il a poursuivie et aujourd'hui, est-ce qu'il euh, est resté fidèle en fait à, à ce processus Je pense que c'est lié à son tempérament dont on parlait tout à l'heure, Mamfatou. Je pense qu'il a engagé la bataille bataille psychologique et la bataille des nerfs contre son, son successeur Macky Sall. Euh, il lui a envoyé un message très clair. Je ne sais pas si les canaux de communication entre l'ancien chef de l'État et l'actuel sont rompus au point qu'il a jugé utile de tenir ce point de presse pour que nul n'en ignore, mais je pense que le message est très clair. euh, sous l'apparence euh, du républicanisme en parlant de recommandations à Macky Sall, ce qu'on a vu, c'est très clairement des menaces à peine voilées contre l'ancien chef de l'État. Quand le président de la République rappelle à Macky Sall qu'il a été son premier ministre et quand il dit textuellement qu'il n'a pas dit un dixième de ce qu'il sait, je pense qu'on ne peut pas prendre ça autrement que par des menaces. Euh, Barca, le temps euh, nous est un peu <laughs> pris. Hein. Une dernière question, que pourrait être euh, la réaction de l'autre camp hein, d'en face mais ce serait très intéressant de voir comment au palais on va analyser cette sortie du, du président de la République. Est-ce que le palais va euh, ignorer royalement ou bien feindre d'ignorer royalement euh, la sortie du président de la République euh, euh, pour euh, ne pas faire mousser et lui donner toute l'importance qu'on a mm Ou bien est-ce que ça va les radicaliser et montrer qu'eux aussi ils sont prêts à pour coup et qu'ils n'entendent pas perdre cette bataille des nerfs qui est très importante, qui est centrale parce que euh, il faut pas oublier que Abdoulaye Wade est un vieux routier de la politique et que s'il marque des points au niveau de l'opinion publique avec cette combativité, il y a un enjeu énorme qui se profile, ce sont les prochaines législatives. Tout à voilà.